asalaamaaleykum man Ousmane eh, Ba Goto ma dellusiwaat pour ñu yàggale waxtaan bi di jégalu rek sànq je me suis emporté mais. émotion la woon rek sama xol moo jeexoon quoi parce que je me suis dit que c'était notre opportunité quoi de se libérer une bonne fois pour tout ah, d'accord moo woon quoi ci dem wuyu Sonko bi parce que man xamoon naa ne dañ koy téye ça je le savais à pour cent source yu leer yoo xamante ni man xam naa dañ koy téye maintenant naka lañ koy téye xaw mais je savais que dañ koy téye parce que wax naa leen euh, donc xool nañ fu ne à la fin seen meilleure solution c'était de provoquer un peu Sonko après mu résister ah, patriotes yi sànni xeer walla jéem leen attaque wala xeex ñoom ñu accuse ko de trouble à l'ordre public quoi you know loolu rek lañu amoon c'est ce qu'ils ont fait en ce moment mais ba tey ci biir loolu samay source ñu may xamal ni que dossier bi procureur yor dafa vide amul lu ñu mun a inculper Sonko maintenant am na ay situ seytaan na fekk yu leen wax ni woy que devant le juge Sonko tagal nañ ko ay sonore c'est-à-dire ay instruments vocaux wala ay vidéo ay yema lépp ay fen neen la du dëgg amul bu leen gëm yooyu sit quoi xam nga dama bëgg ngeen xam benn afar après dinaa def benn live fan yi ma wan leen exactement comment ça fonctionne tous les sit du Sénégal tous les sit di monde ce je peut-être bon surtout yu mag yi yu mel ne ay CNN affaire yooyu ñoom c'est ay entreprises la yoo xam ne ay ils sont des milliards ils sont là depuis des des des décennies mais un site comme Seneweb nga xam ne seen revenu yëpp à part leen di état bi di jox seen revenu yëpp si seen publication yi lay lay jóge ak AdSense you know ak yeneen yeneen yeneen plateforme de publicité yi quoi ah, ay Taboola ak yooyu quoi. le fait que ngeen di dem si site bi rek clic visite bu nekk ñoom dañ ci am xaalis clic boo clic ci article ñoom dañ ciy am xaalis publicité boo clic ñoom dañ ciy am xaalis léegi pour nga xeex leen da leen di booyu boycotter mais mais vraiment boycott quoi c'est-à-dire doo dem ci site bi doo fa clic doo fa def dara seen xaalis day wàññeeku quoi boo désabonné seen page seen xaalis day wàññeeku quoi comprendre noonu la nga leen war a xeexee. parce que ay doomi kañoo ñoo moom site yooyu ils sont pas pour le peuple ils sont là pour leur propre intérêt comprendre muy Dakar muy muy muy ak yeneen ak ñoom ñëpp ay daal à part Pape ak waajo Diop nekk Walf vraiment gisuma fi yeneen journalistes yoo xam ne ils sont pour le peuple quoi tu vois euh, encore une fois maa ngi jégalu sànq jooy naa jooy yu tàng man ñett yoon laa mos a jooy si sama fii c'est que jooy yu honnête quoi yu sérieux yoo xam sama biir ruu la jógee ah mooy bi sama papa décédé ak benn jooy boo xam mënu ma ko partager ak yéen ak jooy yu tey bi quoi biñ tey Sonko ça m'a vraiment bouleversé ba léegi nelaw dem nelawu ma tey nelawu ma mënu ma nelaw quoi liggéeyu ma sa tey defuma dara j'ai rien fait à part nekk ci internet bi di def ay recherche ak ay nit di ñenn source yi quoi euh, Macky Sall dafa def une grosse erreur pourtant on l'a depuis plusieurs fois depuis des années ñu ngi koy averti quoi pour moom lim def euh, Khalifa Sall ak lim def euh, comment dire lim def Karim Wade pour moom mun na ko def Sonko dara di xew mais c'est totalement trompé c'est complètement trompé même renseignements généraux ils sont trompés parce que pour ñoom il contrôle la situation fekkee ay fen la quoi il contrôle pas la situation Macky amul conseil amul nit bu ko ñemee bu nekk ci wotam bu koy wax dëgg waaw loolu nag man Ousmane Ba laay moytul Sonko man laay moytul Sonko quoi loolu laay moytul Sonko Sonko ñun bu ñu ko ñemewul wax dëgg rek. ku mel ni mag yi ko xam kenn du ko wax de heureusement seen mentalité bokkul heureusement seen vision bokkul heureusement seen projet bokkul mais ba léegi rek. Sonko a besoin des gens comme nous. on n'a pas peur de lui, on nous dit la vérité en face. ok C'est vrai qu'avec respect, considération et tout ça. Parce que après le calme, Sonko, si on a trahi, il n'a pas de mal. Les maillots de vous debout, je le rappelle depuis plus de trois ans que beaucoup me passent, au ma carte membre passée, bah, tout que de moi, quoi, l'autre moment, pourquoi? Parce que je bokkuma ci benn parti du ma mës a bokk ci benn parti du ma na nag du ma politique quoi parce que politique ñëpp ñun ñëpp la war a concerner quoi parce que si on reste les bras croisés dañuy continuer du dund ci ndóol bi xam nga il est temps ñu développé il est temps vraiment ñu am le minimum vital parce que on le mérite quoi mais jeunes yoo xamante ni su xoolal tey dëkk baa ngi tàng jeex bëri ay problème nga dem ci benn benn euh, groupe bu tudd let's go visit Sénégal xaw ma ñuy wax ay waxu yàpp ay waxu dem seeraas waxu mel ni ay dëmm quoi des jeunes des jeunes de rien du tout vivre ñu ça sa l'étage yi vivent là-bas au Sénégal mais ça montre les intéresse pas ce qui se passe quoi loolu c'est de l'égoïsme quoi égoïsme la sa dëkk am na loo xam bu ko jarul xotti sa national xotti sa passeport quoi wala nga tuxu dem ci beneen pays te ñun rek ñu ñoo mën a développer suñu dëkk comprendre ma indi suñu dëkk kenn mënu ko développer ku dul ñun ñun rek may ma minute c'est bon suñu dëkk ñun rek ñu a développer kenn mënu ko développer ku dul ñun ok tey boo demee ci ay dëkku tubaab yu bëri yoo xam ñun ñoo leen ëpp ressource ñoom ñoo ñu gën a développé xam nga France je le dis France wax naa ba sonn ñoom ñoo am réserve d'or bi gën a mag ci kawam suuf ñoom ñoo ko yor ci dëkk boo xam ne amul or. pourquoi naka lañ mën a amee boobu or bu toll noonu te seen suuf sol amul or parce que Afrique lañ ko sàccee ok ci France CFA bi lañu téye fii France 21 pays lay coloniser en Afrique. 21 pays yooyu yëpp en réalité pour ñoom ñoom ñoo ko moom quoi mais moomuñ ko ñun ñoo moom suñu bopp gis nga même la France pour mu libéré wu daf révolution dafa am révolte bu nganda moo fa mës a am pour ñu mën a la parce que ay tyran yu mel ni Macky Sall ñu doon diriger France c'était la classe bourgeoise boo xamante ni classe bourgeoise bi nga xamante ni ñoom ñoon diriger France l'histoire on le connaît tous ñun ñëpp xam nañ ko la même chose aux états la même chose fii ci Canada ak feneen pays yu bëri pays européen yu bëri c'était des cannibales des dëmm day seen ay ay dëmm ñoo leen doon doon diriger comprendre mais biñ demee ba xam ne lii mënul nekk mënul continuer dañoo fipp moom moo indi seen liberté bi ñu am léegi ñun depuis plus de quatre cents ans France duñu contrôler c'est que quatre cents ans xam nga ñaata génération la parce que cent ans quatre génération la multiplié par 4 4 multiplié par 4 muy 16 génération 16 génération sama 16e maam ah ba France moom ñuy noot te loolu la France ne peut pas la faire sans avec la complicité de certains Sénégalais mooy ay doomi xaram Senghor ay doomi xaram Abdou ay doomi xaram Macky ok te loolu kenn mënu ko dindi ko duñu maintenant instant bi ñu toll amul reculer pourquoi amul reculer dinaa leen expliquer lan moo tax amul reculer gis bu ñu reculer bu ñu reculer ba mag contrôler waat situation bi on est foutu on est foutu ñëpp lay jàpp benn par benn la ñuy jàpp te même si ça va lui prendre deux ans pour ñu dem wëri ñu benn par benn dinañu jàpp pourquoi parce que réseaux sociaux yi moo tax kenn mënatul nëbbatu réseaux sociaux yi moo tax tey su ma bëggee xam kenn mooy Cheikh Ndiaye ma du wala Xaadim Samb wala Pape Djibiloo wala ma bëgg a xam kan mooy Nido euh, Guèye xaw ma Nido naan ah dinaa du ma duggee ci internet bi rek su ma muusee tuuti rek am patience tuuti def ay quelques recherches dinaa ñëw ba taxaw seen bundu donc ñun ñëpp on est exposé donc instant bi. amuñu lu ñuy perte quoi c'est que mënatuñu reculer bu ñu reculer rek au nez fute occasion bi ba àdduna du tukki dootuñu ko am comprendre donc on doit foncer dañoo war a continuer continuer ba Macky sàll bàyyi léegi nag bu ñu continuer wul tey bu ñu ko ci tegul ci guddi gi ah def li ñu war a def suba teguñu ko ci gannaaw suba continuer ñu teg ko ci pendant trois quatre cinq jours ba mu reculer mu dem abal ñu walla mu tenir discours bu bu bu nit ñi mën a comprendre fii lay jaaya reste yi ba foofu lii am tey Sénégal musul am Sénégal ba Sénégal juddoo ba léegi am nañ fi événement 1968 am nañ fi événement 1988 am nañ fi événement cent 1993 am na fi sa événement wu 2011 2012 bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu Ablaye Wade mais lii am c'est première fois dans l'histoire du Sénégal Sénégal tàkkee nii mu tàkkee nii c'est la première fois c'est la première fois ñu jañoo ak gouvernement xeexal ak moom ci façon bi te yàlla ci loxowu Seydina Ousmane Sonko la ko jaarale gis nga Seydina Ousmane Sonko ah yàlla da ko waroon a junni depuis 1960 kon tey du ñu ñee Canada wala France wala beneen pays mes chers compatriotes luy jot jot na vraiment moment bi képp ku ko fekkee dangaa war a sant yàlla parce que di nga bokk ci ñi ñuy wax ni ñoo libéré Sénégal ñi xeex pour Sénégal xam nga xeex bi ñu bëri den naan ah lu yaa nekk Canada di provoquer ñii wala la moo tax ñëw sur le terrain ñëpp mënuñoo nekk sur le terrain am na information yu bëri yoo xamante ni dañ ma koy jox ma war ko partager ak yéen parce que ñi nekk foofu buñ ko partager gars yi jëlee leen tëj leen. donc il faut am ñu nekk partout dans le monde ñoo xamante ni stratégiquement dañuy bokk ci xeex bi organiser xeex bi d'une façon boo xamante ni dafay jaar yoon comprendre ngeen euh, lu jot jot na lu jot vraiment jot na jot na luy jot jot na dafa sax weesu euh, il est temps ñu respecte il est temps tey boo ñëwee ci hôpital nga feebar sa carte ngay joxe rek ci cinq minutes ñu recevoir la xool la médecin bi lay bi lay bi lay bi lay bi lay bi lay bi lay consulter wala infirmier bi lay consulter respecté la wax ak yow calmement ñu test yi nga war a def yëpp machine yi am foofu noonu ci hôpital bi nga dem il temps ñu diagnostiqué sa feebar ne la feebar bi nga am ne la lii moo koy faj il temps ci biir hôpital boobu nga dem ci pharmacie bi ñu jox la médicament gratuit temps boobu dafa jot il est temps nga jàng CI ba terminal gratuitement ci condition yu bien dafa jot il est temps nga xiif am loo lekk dafa jot il est nga génn sa buntu kër n'importe quelle heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures du matin dem fu la neex ñëwaat te doo inquiété wu su la agressé il est temps parce ci couvre-feu bi lim ci génnee ci gendarme ak policier lim ci génnee ci matériel bu fekkee mu ngi ko doon génnee chaque jour ah tey doo dégg ay agression ñaata xale lañ fi kidnappé ñaata xale ñoo fi réer bu bu bu yàggoon ñaata xale lañ fi violé ñaata xale lañ fi def lu ne est-ce que mos ngaa dégg gendarmerie na jàpp nañ kii wala gis nañ kii wala enquête nañ ci lii jamais du ça am enquête comprendre ay benn ay ay ay sénégalais ñooy volontaire di créer ay page yu mel ni ay trouver et produit ah di di volontaire di di di partager affaire yi nit ñi di feeñ ay nit yoo xam ren nañ depuis quarante ans la ma leen di gis ñuy feeñ ci page boobu te pourtant tey loolu liggéeyu police la woon wala gendarmerie ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen il est temps ah il est temps nga daw ci tali yi sa oto am papier yu leer te benn policier wala gendarme du am futu arrêté la dina laaj ay mille francs il est temps nit ñi xam seen droit ak seeni devoir aussi ok parce que nit fooy def sa devoir dans les normes dañ laa war a jox say droit il est temps dëkk bi nga dëkk dëkk bi nga dëkk ñun ñëpp dëkk bi ñu dëkk muy Sénégal il est temps ñu sentir ni fa lañ bokk il est temps ñu jox ñu cër il est temps ñu bañ a ragal wax liñ bëgg a wax mais lépp ci respect ak ci considération tey ñun bu ñu leen saaga c'est parce que ñoom ñoo ñu saaga woon ñu fay comprendre nga ñoom bu ñu amee tey ñoom ñëpp kenn du nelaw d'après mes sources ah police am man dama connecté wu si seen rajo direct lépp lu ñu wax dama koy dégg lu si gën a bëri bokk ok tey ñoom ñëpp député yi ak personnalité yu bëri ñu ngi demandé sécurité ñu ngi demandé pour ñu envoyé leen ay policiers si seen buntu kër parce que yaakaar ne Sénégalais yi dañu révolté ne xam nga Macky Sall même entourage am dañ koo fen parce que xaalis bu bëri lay joxe pour ñu joxe fii joxe fii pour ñu finance ay projet il a créé pas mal d' agences mais ñi gérer agence yëpp dañ koo fen dañoo sàcc xaalis bi ñu su bëri si ñoom. pourquoi parce que moom patron bi leen dénk yooyu agence yoo xam ne dañu war a financer sénégalais yi projet wu sénégalais financer ay yenn projet développer dëkk bi ñoom ci boppam xam nañ seen patron day sàcc donc dañuy sàcc comprendre temps ñu. defaraat suñu constitution il est temps ñu wàññi pouvoir ak doole bi président de la république am parce que Sénégal constitution bi ah ah loi yi dafa jox trop doole président président muy buum muy buum bi mooy def la il est temps sénégalais bu nekk dugal ci boppam lay xaw Sénégal suba ba ngoon danga cee am part de responsabilité muy lu baax muy lu bon il est temps suñu doom yi màgg si sécurité les temps suñu doom yi bañ a am benn crainte de leur avenir Sénégal n'est plus un pays pauvre avant les découvertes de nos ressources naturelles peut-être amuñu woon ay preuves ni am nañ lii am nañ lii am nañ laa am nañ la mais léegi leer na nañ ci bopp ñëpp mooy am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ am est-ce amuñu diamant peut-être am na xamuñu quoi mais peut-être am tey ay cinquante ans ci ginnaaw am na ñoo xam boo leen waxoon Sénégal am na pétrole dañ la naan da ngay fenn donc yàlla rek moo xam quoi donc yàlla jox na ñu lépp pour ñu dund ci condition yu bien mais la mooy ndeyu benn famille ñaari famille ñetti famille ñeenti famille accaparé loolu yëpp jël ko def ko seen poche ba pare di ñu troxal teg xoolal Sénégal fan yi ñu génn deux un mois yi ku wax ñu jàpp dóor ku wax ñu jàpp tëj pour ñoom ah. dañ noonu c'est c'est c'est moom c'est la maire façon de de de buqatal nit ñi quoi de faire peur les gens mais mënul nekk sa waay mënul kon ne les gens n'ont plus peur xam nga avant l'événement des réseaux sociaux ñu si bëri xamuñu la moo xew ca monde mais léegi télé ci poos sa kër ngay toog fële ca Sagara Gata ok walla ca Gulum di gis lay xew en live aux États-Unis Japon partout nit ñi léegi dañu tukki di dem fone ne ci monde bi ok gis ay affaire yu nice te dañuy bëgg loolu am Sénégal ok man léeg-léeg damay dem ci benn hôpital fii pour ñu consulter ma wala ma romb fi benn pont bu nice sama xel day dem ci sàcc pont bi yóbbu ko Sénégal tellement que dafa suul tellement que très bien fait tellement que damay naan Sénégal da koo soxla quoi lu ma gis lu baax damay bëgg Sénégal après benn instant dama naan man xanaa dama dof hôpital bii nii dama koo mën a sàcc yóbbu Sénégal mënul nekk ok idée bi mun naa ko sàcc yóbbu ko Sénégal mais infrastructure bi munuma ko sàcc yóbbu Sénégal mais xër moo ma jàpp rek bëgg ma bëgg Sénégal rek ak li ma bëgg tamit nit ñi vivre vie bu souple quoi parce que nii ay nit kese la ñoom si ils réussi nous aussi on peut le réussir xam nga Macky Sall même bu doon sàcc Sall mais aussi di développer dëkk bi aussi di jàppale peuple bi ça garaawul quoi parce que sac fu ne la am même dans les pays développés corruption du fa du fa du fa jeex fa la ëppee fii Canada on a eu euh, la commission Sarboni nga xam ne ay pënkal la fi daana la ay magistrat ay chef d'entreprise ay mafia ay ancien ministre ay lu ne la fi daana la comprendre mais au moins ñoom lu ñu gis dañuy enquête topp ko topp ko topp ko topp ko ba am ay preuve ñu démantelé ko quoi amul président mënu leen téye président mënu la xoolal même leen magistrats au Sénégal am nañ pouvoir Macky Sall na leen def li ñu ne defuñu ko parce que ñoom les juges du seize ñooñu dañoo am pouvoir autonome boo xam kenn mënu leen contrôler mais comme lépp dañ ko politiser parce que boo boo boo ñu affecté la Tambacounda ca benn petit tribunal boo xamante doo fa représenter dara gars yi tàngoor boobu la ñu daw quoi comprendre moo tax fu ñu leen juutuloo ñu juutu lu ñu leen defloo ñu def xam waxoon naa leen fi emprunté jom ñàkk jom moo gën a mbaame koo gis ci kaw suuf te effectivement bi mu ñëwee ministère de l' intérieur ba léegi bi muy dirigé ministère de l' ba léegi ay problème rek ñoo am Sénégal vous comprenez ñoom il faut qu'ils comprennent qu'ils travaillent pour nous c'est que ñoom il faut ñu xam ne ñun la liggéeyal quoi te loolu ñun rek ñun ñoo leen ko mën a xamal kenn mun lan ko xamal keneen ku dul ñun c'est notre devoir de les faire comprendre qu'ils travaillent pour nous ok donc nii nii nii nii nii nii amul police amul gendarmerie amul orange amul total amul ma damba amul ma sàmba képp koo xamante ni nekkaloo fi Sénégal dañ fiy jógee force dañ la fiy jële danga fay war a jóge man Ousmane Ba maa ko wax te loolu yëpp mu ngi dépendre ci ñun quoi ci ñun la dépendre en réalité quoi comprendre donc ne la leer ni occasion bii nii ñu am tey dootuñu ko amaat ba àdduna tukki donc bu ñu reculer rek c'est fini du baax quoi Ousmane Sonko tey biñ ko téye mu jël ñaar loxo yi dugal ko ci ginnaaw croisé ko ah man damaa foogoon ni sax dañ koo manote mais après benn instant dama toog ba si yàgg man a xaral ko ma dem ci internet bi j'ai regardé effectivement. c'était un langage codé, c'est qu'il parlait avec nous. Il nous disait, résistez, soyez endurants, ne cédez pas, défendez vos intérêts, défendez finalement, défendez votre pays. Votre pays, hein, pris en otage depuis des siècles par la France et ses complices. C'est que message boobu noonu la ñu Ousmane Sonko doon wax daf ñu doon wax du yomb mais bu leen reculer quoi. ok amul rek on va continuer luñ ci am jël quoi mais boo ragalee ñàkk ci sa bakkan wala nga ragal gaañ ci wala nga ragal leneen leneen jéggal nañ la quoi toogal sa kër jarul ngay génn ko parce que nit am na loo xam daf la koy jaral rek à cent pour cent wala mu bañ la ko jaral ko léegi bu la ko jaralul tamit amul problème mun nga toog kër mais bu fekkee da ngaa feebar tamit ah toogal kër quoi bu fekkee aussi da ragal wala nga tit toogal kër quoi. mais bu fekkee jaralul la ko xamal ni tu mérite pas notre passeport tu mérite pas notre carte d'identité tu mérite pas notre bu jën Penda Mbaye national tu le mérite pas tu mérite pas notre ataaya wala notre ceebu gàncax ak ceebu géej gi tu le mérite pas parce que loolu Sénégal rek la am cere ak mbuum tubaab du ko gént def naa cinq pays ci monde bi laa tag sama tànk lu de laa gis fu ne laa dem su musuma gis tubaab boo xamante ni gént na cere ak mbuum xanaa mu doon tubaab boo xam ne mus na Sénégal mus na dem Sénégal parce que dafa am ay gént yoo xam gént local la par exemple gént jigéen bu sol like euh, nu mu tuddati sax mooy sëru paañ yooyu gàtt yooyu ak jal-jali Sénégal rek la am parce que rek ñoo koy sol pratiquement comprend voilà misaal la rek bu ma lay wax bu ma bu ma doon jéem a ak yéen quoi mais en ce moment je pense que euh, jot na quoi jot na te sama conseil pour euh, quelques membres exécutifs ou euh, passifs man maa leen ko ñaan ngir yàlla éviter les plateaux parce que. amatul temps au plateau ñu négocier nañ li ñu waroon négocier expliquer nañ li ñu waroon expliquer waa Pastef yëpp ña ñëpp ñu jege Sonko ñi def neen li ngeen waroon def ngaa ca ngalaama ñu waroon dem si plateau yi dem nañ fa ñii def wax nañ waxin bu bu normal bu rafet bu compréhensible boo xam ñëpp comprendre ñii wax nañ ay waxi dof mais tamit ñëpp mënuñu parfait tamit quoi comprendre amul problème baal nañ leen ko euh, ñii manqué nañ ay yenn plateau whatever mais noonu rek la mënoon demee ok mais en ce moment amatul lu ngeen fay wax lu ngeen fa waxul woon. amatul lu ngeen fa mën a def lu ngeen fa dafa noonu lu ngeen fa mën a wone lu ngeen fa mën a wone yéen ñi nga xam ne jàppawuñu leen yéen a ngi yéen a ngi libre ah organiser le combat organiser leen combat bi joxaleen consigne wax leen lan ngeen bëgg sénégalais yi def nous on va transmettre le message sénégalais yi jot ci parce que quoi qu'on dise aussi même bu dee cinq personnes ñoo ñuy seetaan sax cinq personnes ñu ñuy seetaan quoi ñu ñuy déglu tamit quoi topp ñu depuis le début peut-être ñi may doog a seetaan ñi ñoo comprendre fan laa jógee ak fan laa yegg si tey mais ñi nga xam ñu may seetaan depuis le début ñoom xam nañ exactement ce que je ak lu may lu ma lu ma lu nekk si sama xel ak si sama xol ak la ma fi waxoon ak la ma fi waxuloon parce que su ma fi waxoon ay waxi dof wala wax fii amul tey kon du ma continuer di wax ba léegi quoi. comprendre voilà si si je continue di wax ba léegi ni c'est parce que boobu ba léegi li ñuy wax lu lu mun lu jëriñ Sénégal la comme si dis rek bu ñu amoon keneen ku gën a correct Sonko bu ñu amoon keneen ku gën a ku gën a crédible Sonko kon ñu bàyyi fi Sonko dem ci kooku quoi mais yàlla dafa def ñi fi nekk ñëpp Sonko moo ñu doy quoi comprendre moo tax ñu koy protéger moo tax ñu koy conseiller moo tax ñuy wax ñuy wax man man man suba Sonko mun na def benn affaire boo xam ne d'accorduma ci ah su ma ko munul jot directement wax ak moom damay xëcc sama téléphone def laay wax ko li ma ko war a wax quoi parce que je sais ci laaj bi daf ci jot soit mu jot ci directement soit mu jot ci euh, indirectement quoi loolu la quoi après waa Pastef mere may tout ça mais dara après après ay quelque temps ñu continué waat àndaat quoi làmmiñ ak chaque jour ñu màttante bañ màtt laamen ba laamen naaj mais bañ mënul dem bàyyi laamen ci gémmiñ bi laamen mënul dem bàyyi bañ ci gémmiñ et puis c'est normal quoi c'est comme ça mais man ku ma xam-xam ni du ma naafeq quoi je ne suis pas un un bu fekkee am ngeen xel tuuti di xalaat rek war ngeen xam ànd ak partie au pouvoir moo gën a yomb quoi bu fekkoon ay intérêt moo tax ñuy def combat bi parce que boo àndee ak ñoom dinañ la jox nañ la wutal liggéey dinañ nga jox oto dinañ nga ubbi sa entreprise ñu lay jox ay marché ngay gañe sa xaalis you know di ànd ak ñoom di voyage fu ne di def you know di am ay possibilités yu bëri quoi sa lépp yomb la mais ñun loolu réyul suñu bët parce que loolu dañoo juddu fekk ko fi dañoo juddoo am ko maagaala ko dem ci àll bi yàlla ubbil ñu woon ñu am lu ñu may tuuti aussi quoi boo xam bëriwul sax mais tuuti quoi entre temps nag ci ci ci ci semé bi am na am na ci am na ci ay ay ay ay ay par semaine quoi ci semaine bi am na ci ay ay jàllankoor vivre après nga nga jàll ko après nekkaat ci leneen après lu àdduna la moi je le dis toujours fii du paradis quoi du àjjana àdduna la quoi donc àdduna lépp coono la quoi donc lu ñuy dund rek dañuy xam ni sa faisait partie de notre destin dañ koy vivre mais on va le vivre dignement et honnêtement quoi kenn du ñu ci yëpp amul papa amul yaay nag yaay ñu yëpp papa duñu yëpp grand frère duñu yëpp petit frère duñu yëpp kenn duñu yëpp lu ñu am te mënuñu koo séddeeg famille bi wala munuñu koo yóbbu Sénégal soxlawuñ man bokk soxlawu ma ko donc nañu bàyyi suñu différence fële ñun ñëpp ñu booloo nekk benn ñu ñu ñu ñu ñu défendre suñu suñu pays quoi Euh, dégg naa sànq Alioune Sané bu Y'en def benn conférence de presse ak les autres ñuy wax ni que nañ bàyyi ba vendredi pour mener combat bi mais loolu mooy ban wax ñu bàyyi ba vendredi pour def benn marche bu pacifique kañ la gouvernement du Sénégal bàyyi ñu marcher pacifiquement musul ab donc j'ai excuse-moi j'ai aucun problème avec Alioune Sané j'ai aucun problème avec Y'en bëgguma sax am ak ñoom problème parce que am ñoom problème problème bu nganda lay doon parce que man du ma téyewuma sama làmmiñ man man man man man kenn nu maa tar wax dama wax te su ma waxee musuba day am mais comme ñun ñoo bokk combat bi en ce moment te ñoom dañoo am squadal dañoo am seen programme ñun ñu am suñu programme ñoom nañ dox seen programme ñun ñu dox suñu programme léegi nag bu fekkee dañoo amandoo programme boo xam ñun ñoo ko construire ñoo ko defandoo ñoo ko bokk waaw boobu mun nañ ko def quoi ñun tey lañ commencé te dañuy continuer ñoom vendredi lañ bëgg commencé te ñoom vendredi la ñuy yem nee nañ parce que seen marche vendredi la ah vendredi tamit ah ñun dañu dem rek continuer ak ñoom quoi jàppale leen mu nekk benn quoi mais ñu paree ak ñoom ah s'il veut ñu continuer mais continuer bu transparente amul ñu leen di jox xaalis si suuf ñu ñuy jéem a teg ay dil quoi depuis très longtemps comprendre loolu dootuñu ko nangu duñ ko nangu quoi duñ ko nangu donc euh, possibilité bii ñu am ni buñ ko fawee rek c'est fini yàqu nañ lu leer laa la wax léegi nag armée bi nag aussi bu fekkee ils ont les couilles c'est-à-dire bu fekkee vraiment stabilité wu euh, dëkk bi moo leen soxal il est temps ñu jël pouvoir bi ah contrôler ko entre temps ñu organiser ay élections parce que ma fi bu fi jógee dans le nord Moustapha Niass moo waroon moo moo ko waroon remplacer en temps ñu ñu organiser ay ay ay ay élection mais Moustapha Niass mooy Macky Sall Moustapha Niass amul fulla amul personnalité te man Ousmane Ba maa leen ko wax sama loxo ci Arxuraan ba àdduna tukki du nekk président Sénégal du day la ma leen wax waaw donc nag ñu def lu dul rek def faate ak salaatul faate Euh, def ay ñaan yàlla aar Sénégal aar suñu réew aar mm, peuple bi parce que aussi suñu yaay yi suñu frère yi suñu sœur yi suñu soxna yi suñu doom yi suñu mbokk yi suñu dëkkandoo yi ñu ngi foofu te bëgguñu dara lu leen métti tamit quoi donc suñu responsabilité ñu ñëpp ñu def bloc ànd nekk benn aar Sénégal am na ñu bokk euh, euh, APR te en ce kontaan nañ suñu mag yi ngeen gis nit ñu su bëri Matar Ba moo leen recruter quoi ñu si bëri Mbour lañ jóge ak Fatick mais mm, ay photo yu bëri ñu ma koy envoyé ak ay vidéo yoo xam maa ngi koy enregistré di ko denc quoi parce que ñoom tôt ou tard tôt ou tard Macky dafay jóge te dañ leen di dem jëli benn par benn pourquoi ñu war leen dem jëli benn par benn yóbbu leen tribunal tribunal naat lan ñu condamné leen parce que affaire u nervi moo war a jeex parce que liggéeyu police lañ nekk def wala liggéeyu gendarmerie te gendarmerie dañ leen fay pour ñu def boobu liggéey quoi te li si gën a doy waar moom mooy dañu leen di gis ñoom ñu ànd ak pël c'est pas des police en civil parce que ñun xam nañ policier en civil yi xam nañ lan mooy seen code parce que chaque jour ñoom dañuy am benn code vestimentaire mais dañuy am aussi benn code dañuy am façon couleur bu ñuy sol par jour lundi bi ñuy sol lu weex rek mardi bi ñuy sol lu bleu rek wala ça dépend ci mission yi ñun xam nañ langage du police quoi donc ñii c'est des nervis bi am su ñoo xam ne nañ la mais li ci gën a mooy ils avec les policiers wala les gendarmes quoi ça m'a fait très mal dem leen ci sama dem leen ci sama ci sama Facebook ngeen xool chaque instant li may wax ah trente mille quarante mille cinquante mille après exactement loolu mooy xaw man naka laa ko xamee ma ne la renseignement généraux soo mënul xam man sama source Macky Sall lu mu def suba ba ngoon xam nañ ko comprendre nga voilà léegi nag bés bu perdre pouvoir bi ba Sénégal am un dirigeant bu ko mun bu ko bëgg bu bu un patriote bu bu gérer dëkk bi ah. ni mu waree man dinaa ñibbi jox police samay technique samay samay technique comment je fais après ñoom peut-être mun na leen jëriñ pour ñu exploiter ko pour ñu jëriñoo ko pour sécurité réew mi quoi parce que c'est que man ñoom mun naa leen jàngal lu bari te ñoom xam nañ ko voilà merci jërëjëf maa ngi leen di bàyyi ñuy bu ngeen ma déggul rek maa ngi ci publication si sama Facebook wala maa ngi ci liggéey bi wala maa ngi corona wala ñu ngi ci quoi parce que instant bi amatul nelaw ba mag yi réew mi quoi force dafay génn réew mi quoi wala mu nekk nit quoi mu nekk nit quoi comprendre voilà yaa ngeen jëf merci te mu libéré gii Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna dégg naa depuis démb dañ koo futti taatu ne lañ ko futti yaramu nen dugal ko ci benn chambre boo xam ne amul lumière amul dara tëj ko foofu lekkul naanul loolu façon torture nit boobu pour lan la gii non gii gii mag yi amal na ko ak bu rëy a rëy billaahi wal kitaabi quoi koo xamante ni pratiquement lim nekk ci biir kaso bi moo ëpp mille francs lim libre quoi bi mag nekkee ci pouvoir ba léegi gii tey bu yàlla defoon ñu jël pouvoir bi dinañ ah, ko jox post ministériel boo xamante ni ah, billaahi dina régler ay police wala mu régler justice bi quoi parce que affaire yi amul nga amay doctorat wala jàppa ba affaire bi volonté la rek comprendre patriotisme la rek bu fekkee bëgg nga dëkk bi vraiment lu ne mën nga ko gérer quoi parce que à la fin sa équipe mooy yow ak sa équipe yéenay def liggéey bi quoi vous comprenez donc amul ne lu génn leen dem ci liggéey bi gaa yaa ngi ci mbedd mi ils sont partout bi ñëw na Kaolack Thiès Fatick Sabib Maki dëkk et partout quoi ok donc euh, il paraît même armée bi ah euh, sont avec avec nous quoi armée bi est avec avec le peuple quoi mais moytu leen rek moytu leen quoi parce que on ne sait jamais peut-être ci biir bi am ñoo xam Macky la ñu àndal am ñoo xam peuple la ñu ànd mais moytu rek moytu rek on fait confiance à personne on travaille en équipe ñu ne law quoi. nervi yi ngeen di gis ñu bëri ay tapet lañ parce que bu ñu nekkoon ay tapet duñu yor ay ay ay ay ay ay ay ay gourdon wala ay ay gourdin wala ay je sais parce que dóor dóor ni rek munuñ ñu quoi donc jaa jëf ñu delloo ci liggéey bi merci jërë ngeen jëf jégalu bu wër